comme niñ ko xamee li waral tey jii ñu leen ngir ñu daje waxtaanee mbir mu am solo li tënk suñuy ponk yi nga xam ne moo yor réewum Sénégal comme niñ ko xamee saa su nekk république de valeurs réewum ngor yàgg na di dénoncer yi nga xam ne mooy tënkoowul ak yoon tey yàq suñuy warma dëkk loolu defe naa ci sunu deretu parti la bokk muy ay valeur ci kaw loolu dafa am xibaar boo xam ne ci nuñ ko mën a tënkee ci règlement yi nga xam ne moo yor lii di télécommunication te kii nga xam ne muy maire Mbao ñu gën ko xam ci turu monsieur Abdou Karim Sall moom ak président de la République yoon daf leen daan ci benn code boo xam ne mu ngi bawoo ci code télécommunication électronique donc article bi dafa wax maanaam article bi article 239 la maanaam ñu ngi ko xayma walla tënk ci atum 2018 ci bisu 12 décembre muy fukki fan ak ñaar ci weeru décembre deux mille dix-huit ñaari junni ak fukk ak juróom ñett ci atum tubaab kene kii nga xam ne mooy directeuru ARTP lépp loo xam ne dafa làmboo ak politique amul droit bokk ci lépp loo xam ne dafa laale politique moo xam ci wàllu li jëm ci nekk ministre au niveau national wala mu nekk niveau local bi muy nekk maire wala mu nekk président commission bu mënti nekk ci wàllu local moom yoon woowu may ko ko parce que bokkul ci li nga xam ne luy bokk ci war may réew mi la moo tax nag ñu ne kon le président Macky Sall ay cuune ñoo ko wër ndax li waral ne ay cuune ñoo ko wër mooy bu ñu demee ba nga xam ne moom ci biir ñi nga xam ne lay liggéeyandool ñàkkul ne am na ñu xam li nga xam ne mooy article bi que ne koo xam ne takkal nañ la ndombal tànk li nga xam ne mooy ARTP amoo droit nekk maire amoo droit nekk ministre kon loolu bu amee rek kon ñoom ñaar ñoo bokk nës loolu ndax jombul ne ki nga xam ne mooy le maire de nekkoon na fi ci ay jamono ARTP kon taxi yooyu xamoon na ko kon dafa def lu ko neex dafa bëgg a salfaañe li nga xam ne mooy démocratie réew kon bu lu mel nii amee ñu nekk ci dëkk boo xam ne dëkku loi la dëkk boo xam ne wax dëgg yàlla war nañoo delluwaat ci xam-xam ndax kenn ku nekk ci ñun xam na ne poste bii di ARTP en 2012 kii di sunu président parti muy le président Thierno Alassane Sall nekkoon na directeur général ARTP ci jamono 2012 bi mu ñëwee dafa fekk salaire ñaar fukki million ci li nga xam ne moom lay fayeeku weer ak li nga xam ne mooy li jëm ci wàllu logement lu mu ci mën a doon moom mu daal di gis le président Macky Sall ne ko lii di million yi nga may fay dafa bari nan ko wàññi ba mu ñëw ci juróomi million parce que man juróomi million képp doy na defe naa ci ab directeur général ci la président Macky Sall ne ko nag gisanteeg Aminata Tall si lañu ñu génne woon décret boo xam ne ñu réduire salaire u directeur général yi de vingt à cinq million donc ñu jàpp ne koo xam ne lu la lew bëggoo koo lekk kon looy doyee lu la lewul dañu jaakaar ne nag dëkk boo xam ne buñ fi nekkee tey ay nit nekk fi kenn ku ci nekk jàng ay ndaw ñoo xam ne dañoo jàng am seeni diplôme am seeni master di taxawaalu ci mbedd mi mënuñu liggéey benn nit ñu jël ko bëgg koo jox téeméeri ndombal tànk mu mën koo takk ñu jàpp ne loolu maanaam dañuy xajamal li nga xam ne mooy sunuy fondamentaux wu république bu ñu jëlee benn exemple rek boo demee fële ca Tambacounda dëkk bu ñuy wax Gumbayel nga dem jaar fa dem bani Israël xam naa ne docteur Diallo du ñu bàyyi ndax xam nañ ne foofu mooy feefam boo demee ci dëkk yooyu da ngay gis teen yoo xam ne ay ñaar fukki mètre ay fas lañuy takk wala ñu takk ay ñi nga xam ne ñooy ay nag pour ñu xëcc ndox mi mu mën a génn nag yi mën mën a naan seeni ndaw dañuy jàng ba sonn dañuy ñëw fii Dakar duñu am logement dañuy mujjee bàyyi nga jël Fuuta noonu nga jël feneen noonu bu fekkee ne nag noonu la réew mi nar a doxee est-ce que réew mi jar na nit ñi jàngati est-ce que jàngalekat yi nekk ci àll bi di dem fu toll ni cent kilomètres ci àll bi bu ñuy bëgg a dem exercer seen mission ay camion lañuy yéeg risque bu nekk mën leen cee dal de passage maa ngi nuyu jàngalekat yi nekk ci àll bi yëpp fële ca Tambacounda ndax am nañ fa histoire boo xam ne wax dëgg yàlla buñ ko fàttalikoo di bëgg a jooy kon réew mi bu ñu tollee ci foo xam ne benn nit day bëgg a jël fonction yëpp ñu ne loolu nañ ko dakkal ci kaw loolu lañu woowee sénégalais yëpp woo leen yéen sunu mbokk taskatu xibaar yi li leen wax ne article bii bu fekkee ne son excellence Macky sàll yëg na ko wala xam na ko wala mu xam ko ba noppi teg ci tànkam république des valeurs mu ngi koy woo ci ki nga xam ne moom la takkal ndombal tànk directeur ARTP muy Abdou Karim Sall en même temps mu nekk maire de Mbao mu teggi tekki ay ndombay tànkam ci lu gën a gaaw ci ñaar yi nag lañ ko may moo xam bum mu tànn moo xam day dindi ndombal tànk maire bi ci commune nu moo xam day teggi ndombal tànk fële ci ARTP waaye ñun may nañ ko huit jours mu jël ci li nga xam ne mooy décision ci kaw loolu nag ñun li ñu war daañu ko def ndax defe naa ne parti boo xam ne ci ay valeur ci njub ci tegu ci yoon boo xam ne ëllëg réew mi dana nekk ci réew moo xam ne réewu démocratie lay doon boo xam ne kenn du jalgati benn loi kon ñu ngi wax ne sénégalais yi ñun suñu taxawaay dafa nekk taxawaay républicain saa su nekk rek ne war nañoo wax wala ñu war a jóg taxaw danañ ko def ndax bu ñu bàyyee ay cumul de fonction benn nit gis nañ ko fi ay maire yoo xam ne tamit nekk nañ fi ay député yooyu yëpp Sénégal defe naa ne war nañ koo dépasé ndax diplôme yi ñuy am ci daara yi kawe yi wala bu mu ci mën a doon kenn ku ci nekk war na cee mën a am kon nag ñu ngi wax ne bokk na ci li gën a tax mbir mi gën a sooxe fële ca mbaaw gis nañ jamono yi weesu ci certificat de résidence yi mu am jafe-jafe lool da ngay déposer certificat de résidence mu diire vingt et un jours wala quinze jours wala dix jours pour nga mën a jot sa certificat de résidence ay mag dañuy bàyyi seen kër war a mën a dem wuti li nga xam ne mooy certificat de résidence dañuy jaabante ba sonn ñu ne la da ngay xaar la maire Abdou Karim Sall mu ñëw signé ndax kii di maire Mbao muy Abdou Karim Sall dafa génne benn dogal muy arrêté boo xam ne da koo jël ci yàkkamti nëbb ko ñi nga xam ne ñun en tant que conseil municipal waxtaan ak ki nga xam ne mooy officier état civil bi muy monsieur Mala Diop mi nga xam ne moo doon signé li jëm ci wàllu këyitu juddu lu jëm ci wàllu kayitu résidence ak li nga xam ne mooy certificat de mariage mu nangu benn bi rek muy certificat de résidence ne doo bu ko signéeti bind arrêté ne maanaam teggi naa sa loxo ci signature résidence yi ci kaw loolu nag ñun ñu ne kon maire am na ay tëgg wëndeel yoo xam ne mu ngi ko doon nas ci suuf ndax bu jëlee li nga xam ne mooy certificat de résidence yi képp ne kii nga xam ne mooy chef état civil bi bu mu ko signéeti kon la mu nar xamuñu ko ba tax na tey ci suba rek sunuy ndaw dem nañ ca mairie ba pour mën a am résidence ñu tere leen ne ñoom liggéeyuñu fan yi yëpp ñu ngi jaabante waaye mënuñoo am résidence ci kaw loolu la ñu woo le sous-préfet bi nga xam ne moo yor arrondissement bu caaro yi woo ko téléphone yëgal ko ne ko am na ay ndaw ñu bëgg bindu comme nag am na article boo xam ne wala loi boo xam ne dafa permettre képp koo xam ne mu ngi ci wàllu euh, maanaam bëgg këyit te mënu koo am am nañu sañ-sañ ñun en tant que politique wax ak moom pour mu mën leen a defal kayit googu te it wax dëgg yàlla ñu ngi remercier lu sous-préfet ci collaboration boobu nga xam ne defal nañu ko ndax ndaw ñi ñu fa yób yóbbu yónni ñëpp jël na leen en en charge ba mu ngi leen di defaral li nga xam ne mooy résidence kon jàpp nañ ne tey li taxoon ñu woote point de presse bii lii la waaye nag du ñu jóg di fàttali na rek sénégalais yi kenn ku ci ne ñu ngi leen di ñaanal jàmm ci bisub korité bi nga xam ne génn nañ ci woor ko ci jàmm di sant yàlla suñu boroom bu baax di jaajëfal ñi nga xam ne aussi ñoom ñooy suñu mbokk jàngu bi ñi nga xam ne woor nañ 40 jours aussi ba nga xam ne yàlla defal na leen jàmm donc beneen bi aussi ki nga xam ne mooy buya wan moo toog nii sunu wet moom lañu duma woon duma yu métti ya foofu ca mbaaw defe naa duma nañ ko bañ koy toggal xewar soxna si sonn na lool defal na ko supp ak lu ne mu ngi nii tey jii defe naa ne fukki fan yi mat na bi nga xamee ne defal nañ ko certificat médical ba mu génn ci yàlla defal na ko jàmm mu ngi ni toog suñu wet di fàttali nag dossier bi nag déposé woon nañ ko fële ca tribunalu instance su Pikine Géejawaay waaye defe naa ne ñu ngi ko doon topp waaye ba léegi amaguñu requête boo xam ne jox nañu ko maanaam ñu ngi ko déposé woon ci le 11 avril 2023 numéro dossier bi moo nekk 32 06 di fàttali rek ne comme dëkku yoon lañ nekk ñu ngi rappeler que le procureur na def li nga xam ne mooy liggéeyam woo ñi nga xam ne mooy les concernés ñi nga xam ne ñoom ñoo dóor suñu camarade bii di Bouya dóor ko wax dëgg yàlla dóor yu métti ba nga xam ne dëkk bi yëpp ñu ngi koy waxtaane kon loolu defe naa ne moo waraloon suñu teewaay tey